Oui. Maître Marcel, où est le temps avec Maître Marcel pour la relaxation. Allez, Maître Marcel. Allez en place. Allez, suivez. C'est mmh. 400 Allez vers la droite. Allez, on s'oriente vers la gauche. Allez, vous allez vers la droite. Main derrière le dos. On passe. Allez, les genoux maintenant. Rotation des genoux. Maintenant, après, nous passons au tir. Une démonstration de tir. L'outil bas. Allez-y. Et on y va, les Reculez la jambe droite. Allez, suivez. Montez la main gauche. Et ça redescend vers le bas. On lève la main droite. Demi-cercle vers l'arrière. Et vous et... Ok, c'est bon.

waaw léegi yow boo doon question rek. Restez là-bas. Restez là-bas, restez On va, vous montrer. Votre attention, s'il vous plaît. On va faire une démonstration de tir au pistolet à air comprimé. Voilà. Par Loutiba et Antoine Djandi. Antoine Djandi, c'est le président de la Fédération sénégalaise de badminton. Regardez l'attitude qu'il a. Quand on tire au pistolet, on prend tout son temps, on inspire, on expire. Et vous entendez Parce que c'est un pistolet à air comprimé. D'accord C'est des calibres 22. charge. Vous tirez, vous Mais de près, à moins de 10 mètres. Alors, pour la première fois à la plage avec euh, euh, le tir au pistolet sous la direction de Loutiba. Niñar, c'est des, des champions de tir. Fama, ça va nous tirer les gens. Fama. Tiens, Anna Fama. Et eh, donc, Fama m'a tiré. <laughs> Bravo. C'est un 10, hein? Voilà. C'est un 10. Pour l'outil, l'outil Reculez, eh, reculez, Il a fait 7. Il a fait 3 7. 1 10, et 1 9. Quand tu touches le noir, c'est que l'algue cible. Les Euh, il faut agencer ma wutal kenn ku la dimbali de ce fait ah kan la indi ko fii dama jàpp ko nga indi ko fii. doone alors voilà wutal wutal ku la dimbali pour ñu mën a mais booy da ngay saboté waaye tamit seen naa la sànq euh, wutal wutal ku la dimbali il faut. Après, on va planter, on va planter, je vais... Alors, c'est l'outil qui tire. Il faut venir tirer. Je te jure. Loubé, Loubé, il faut que nous tirions. Il faut que nous tirions. Il cible, 50 mètres, 25 mètres. bravo Louty. def leen ndànk def leen ndànk. Ousmane Sy kii mooy patron service programme directeur service programme. bon on va. waaw. waaw moo tax nag moo tax ma ne na ñëw na ñëw jox ñépp ñëpp mënuñu am j'ai choisi quelques-uns à qui j'ai donné des diplômes waaw il faut préparer tout nga xam ne duñu tout ce qui est RTS c'est madame Guèye qui va donner waaw bañu am succès waaw yow xamam muy ni moom loolu la bëgg dafay yox si suuf naan ma non na na ma dem na ma dem joxe non dama toog dama toog dama toog fële yow attends Mohamed waaw acca acca c'est c'est bon mat na Mohamed mat na Michel Diouf Ousmane voilà pardon Nicolas Thiam bon service reportage service télé service reportage radio

voilà voilà la fédération sénégalaise de karaté voilà wan ko wan ko écran yi ëlbatiku boy <laughs> ak ban dumbe dumbe am joxo léegi nag waaw sec il faut am ko photo ay ca ah waaw sec li ngay def kañ il faut ñu jox la ko bravo tàccu leen ko ak kañ non dencal li kooku après dañ ko koy yóbbu Ibrahima Ndoye président Samado international am c'est le père de Alassane mon il vient de Saint-Louis ak pan le diplôme non kii nañ ko denc nekku fi c'est des amis de longue date ñii ñaar nekk équipe nationale lépp def nañ ko waaw waaw mu ngoog pour Abdoulaye Diène très bien ak ban après kii un de ses élèves j'ai vu un de ses élèves ici colonel Momar Gueye am jox ko jox maître Sidibé reculer tuuti nii aca

acca mu ngi nii te eh, yow jëlal ngay wax après yow da nga yéex a acca Moussa Diaby voilà Fama yow yaay jox madame Diouf Marie Parti madame Diouf taxawal Fama madame Diouf Marie Parti na gaaw na ah voilà mu ngoog luuti mu ngoog luuti ba c'est un tireur hein maintenant tu donnes à luuti na ñëw beneen na gaaw na gaaw parce que mi ngi naaj ana Mamadou euh, Niang Krav Maga médecin kay jox ko ana médecin o colonel Ababacar jox ko mu jox ko voilà mu ngoog andi beneen gaawal gaawal gaawal gaawal voilà le président Maham Ka voilà très bien Souleymane Badialo kay joxal ma ka par rapport ak li ñu def ñëpp liggéey bi ñu def yëpp waaw na ñëw na ñëw na ñëw na ñëw voilà man nag un cas sur le sur sur le Mahama voilà waaw d'accord na gaaw na gaaw na gaaw Acha. Il n'est pas Il n'est pas là. Babacar Badiane. Voilà. ak ku si topp il est là Babacar Fall Bedos de Djibril Fall Pape Djibril Fall voilà nga bàyyi tiitaru. dañ mën a tiital trop gis nga ni muy tiitaru nii. non non andi. oh kii man maa koy jox. Antoine Diandi Antoine. mu faral tata bi pour lui. ok ñëwal nii. waaw noonu la waaw noonu la voilà acca na ñëw Babacar Babacar na ñëw Déthié Faye Déthié Faye UCG Déthié Faye ana moom John Dipo Déthié Faye eh tàccu leen UCG yéen tàccu leen UCG waaye Mohamed andi beneen à Karasek le de Tatami sa sa wolof am dox dencal Après, on donne à Pape Djibril Fall son diplôme par Morgueil. Morgueil à Pape Djibril Fall de Walfajiri. Il fait, il fait la promotion des arts martiaux. am waaw Marcel Gomis Mohamed Camara nekku fi non après waaw Tawsu la wax na dëgg rek ak kan ak kan merci bien Moussa Lo Moussa Lo ana Voilà. Morgueil à Mohamed Camara son diplôme. ñu ngi nii animateur Le président la Fédération sénégalaise de karaté va recevoir le diplôme de El Mokhtar kaay waaw voilà on va remettre les diplômes du docteur Djibi Diallo sous-préfet de la de Dakar Plateau voilà moom lu baax rek lay def. jël jël Babacar planté naa keroog ba planté woon planté woon naa ba yëpp mu ngoog très bien ñëw leen ci Fama. voilà Fama est en train de porter son verre. non ah, yor naa ko may ko mu defal sama xoolal fii. photographe photographe. vas-y vas-y. trop satisfait. Là, on est en train de. Allez, comme le qui. temps en temps nag boo leen boo leen amee jot. waaw da ngeen di siggi pour ngeen gis seen kanam. ok. Balé avec Alima et. voilà. action. sigil sigil tuuti xoolal caméra loxo Weidal, Weidal, kein Foto. Khady mi ngi ci benn micro mi ngi ne la mi ngi ne la xaaral tos tëj xaaral mu tëj xaaral mu tëj ma tëj. ana.

nee na présenté leen mbëtt leen gis ngeen ko opération yi mu def tay le président de la nekk ci loolu parce que dafa am loo xam ne sax waruñu xaar ñu leen koy wax ku nekk war nga jóg yeewu sama teel rek dem wuti ñaar ñetti garab dem fee na nga kii ba pare nag di ko toppatoo beneen bi mooy nañu bàyyi di sànni mbalit mbalit baaxul day indi feebar ku nekk fa ka nekk loo yore muy mbalit bu léegi nga boo nekkee sa oto nga sànni ko da koy bàyyi sa biir oto boo yeggee si kër nga dindi ko jafe si nga joxe loolu bu ko defee dina am ay kontaan soo seetloo discipline euh, yëpp ñëw nañu karaté judo taekwondo bovina samado ñëpp ñëw nañu donc dañ leen di jaajëfal di leen remercier di leen féliciter la grande muraille verte euh, vous avez entendu les deux personnes là wax na benn communication ñu koy gërëm di ko sant moom tamit Euh, monsieur Diop euh, le colonel major Baye Diba eaux o forêt mooy général bi ñu ngi koy gërëm bu euh, agent yi fi nekk waa UCG ñëpp ñëw nañu je crois que aujourd'hui du ma ko ndamoo parce que nit ñi ñëw loolu nit ñi fi nekk loolu du ku nekk ñëw nga ñu ñi indi ndox ñi indi leneen ak leneen au plan financier nag man du ma calculer dama naan ku ma jox ma def ku ma joxul parce que dama ne dama siy jaamu yàlla parce que garab. boo xoolee fi ñu fi fii planté nañ fi au moins quatre vingt dix arbres sans compter yi yóbbu suñu kër ak jàkk yi nekk def nañ fa te tous les jours damay ñëw arrosé ko damay yeewu suba ñëw arrosé le soir ma ñëw arrosé te loolu garab day dund garab day julli garab day sabal day tudd yàlla donc di takk garab bàkkaar nga siy am moo tax nag ñun ñu ne bon euh, au lieu que ñu ñëw di def ay karaté di def kii sànni tànk non ñu ne tuuti lañ siy def mais def ay action yu bëri te loolu yaakaar naa ni nit ñi euh, kontaan nañu di nga président de la République ñëw ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam merci. Ablaye Cissé ñu gën maa xam ci Saa Wolof may ñuy teewal wolof ci ndaje yu mel nii moo xam ndaje tàggatu la wala ndaje boo xam ne nii ay way xaral moom la ñu naan bëgg nit ñi di ko waxee ni nga xamee ne noonu la ñu ko war a waxee ñu xam ne wolof dafay làkk gànjaru mooy làkk bu mooy làkk bu bari baataan mooy làkk bu bari ay bokkam ñooñu moo ñu tax ñi nga xam ne tey ñoom ñooy makkeew yi di environnementaliste yi ñëw ñu jëmbat ay garab ñu bari boo ko waxee da ngay naan dañuy soxla garab wala planté garab jëmbat garab ñuy garab garab moo ñuy keral garab moo ñuy jox garab ñoo seq ak moom kéew mi ak suñu borom laata mu ñuy wàcce fii dafa defar kéew mi environnement bi ba nga xamee ne dëppoo na ak li ñu war a nekk di wàcce bi doomu aadama wàcceeg léegi nag di yàq garab yi donte ne garab yi sax suñu borom teralee la war a sàkk ci ñoom war a sàkk ci ñoom di defaree ay ay konaar maanaam di ci defar ay ceeb bu nekk wala ay taamu ak waaye suñ ko daggee ba noppi dañ koo war a suufat dañoo war a saxa jëmbataat di ko suuxat bu sax ba lépp naat ndax bu naatee ñu ngi naat doomu aadama di leen jaajëfal yéen caabarkat journaliste